tout cas comme niñ faral di defee su nekk yéen ñi nga xam ne yéen ci commentaire yi euh, gisaguma leen nag xaw kan mooy njëkk ah, euh, gisaguma ci kenn kenn kenn kenn tàmbali leen waaye ma mën leen a tudd. Hmm? maa ngi gërëm ñëpp daal en tout cas donc toppukaa bi fi ñu koy dooree tey mu ngi jëm ci euh, tikke lawbe tikke lawbe. Mm, fi mu toll nii moom mooy mooy buzz bi ci Sénégal dafa mel nii ginnaaw xew Nabou bi gis nañ ko lu bare bari gars di ko di ko tendance ci TikTok bi mm, euh, kenn ku ci nekk di ko tooñ mu ngi noonu moom moom moom ku saf xorom la mm, xaritu Ndeye Gueye moom nit ku saf xorom la te tamit nag euh, xoromam si mu am moom dafa mel ni tasaaroo na Tické nag dafa nekkoon ci sumbulu yàgg fa trop ak moom waaye dañu jékki-jékki mu mel ni xamatul sumbulu moom sax moo ko waxal boppam sumbulu mu ne man xaw ma kuy kooku xaw ma tur boobu donc euh, mel na ni moom musta séq ak sumbulu dara te pourtant moo daan toog ne man maay lawbe bu sumbulu tagg ko bàkku ko léegi nag lan mooy problème bi ba tikka lawbe jékki-jékki génn ne man xaw ma sumbulu gars yi di ko dóor ay vaar benn par benn di ko xamal ni ko fàttalikul démb ndax démb kat yaag sumbulu daan ngeen ànd kon dafa mel ni yaa quelque chose quelque soit moom Tické moo tooñ Soumboulou wala sumbulu moo ko tooñ wala am na lu xew seen diggante ba Tické man nangootul xam kan mooy Soumboulou ak lu ci mën a xew bàjjan est-ce que rafetlu nga lu baax a baax xam nit ki ñu ne la ndax xam nga ko nga ne xaw ko te yéen ñaar daan ngeen ànd ànd bu rafet. non non loolu rafetlu ma ko li may faral di wax chaque jour rek nit ki ak lu ngeen mën a jotee ak lu mën a xew nga xalaat ni ah un jour viendra man ak diw dinañ juboo moo gën parce que ñu ko interrogé moom dane kuy kooku la wax xawma ma kooku gars yi <laughs> yóbbu ko vaar ñu indi démb mais moom ba tey nanguwul am na loo xam ne rafetul parce que démb lañ ko gis kër sumulu muy tagg buri ah di tagg yaayu sumulu di tagg beneen euh, magu sumulu bi naan man yéen laa am kon tey suñ ko interrogé mu naan noonoo xaw ma sumulu te boobu ba léegi moom mooy wax mais mu fàttaliku démb li aji maas wax même su dee benn jour sax sumulu defal na ko teraanga am na loo xam ne nag doy na waar daal. est-ce que amul lu ko sumbul def. ah sumbul boobu léegi waxul de sumbul moom mi ngi noppi rek toog fi mu toog mais daal sa waay law bi dañuy gis muy wax rek moom mooy wax di wax. law bi kat gaa ko laaj sumbul ah, nee na xamul kooku kooku. waaw te ba pare démb nekkoon na ko sumbul toog di waxtaan ak moom mais bu mu wax ne kuy kooku. parce que ba mu koy defal teraanga tamit ak ñoom ñaar ba ñuy ànd ñun suñ yoon nekku ci fekkee wuñ ko woon kon tey suñu demee ba koy laaj dara am mais bu mu wax ne kuy kooku xaw ma kooku est-ce peut-être sumul dina génn wax. journaliste yi laaj tam est-ce que duñu fekk loo xam ne ci ruq la nekk ñu génne ko lan moo xew xewu Nabou Dash lan moo fa indi euh, question Soumboulou loolu a ah, dañ ko gis démb ak Soumboulou parce que tey gis nañ ko ak man ak Nabou Dash parce que Nabou Dash sañse bu mu sañse ñu ngi gis moom ci ginnaawam mu ànd ak moom dugg génn te démb noonu lañ ko gisee woon ak Soumboulou xam naa moo tax gars yi laaj ko parce que gars yi tamit peut-être bañ ah, mu jotee ak Soumboulou xaw ma lan moo xew. mu hmm. daal di noonu ak Nabou Dash ah, moo tax xam naa ñu indi question boobu gaa yi itam dañuy jaxase de <laughs> yéen ngeen doy waar ñun sax laay wax. yéen a doy waar. ah loolu mhm. waaw. yaakaar naa yaa ngi topp coow loolu ci diggante ci kelaw bi gaa yi di ko génneel ay vaar ay bàjjan mboose kenn ku ci nekk génn na. Euh, di wax ak Tické naan ko sa nitu démb la fàttaliku démb jaar ngeen fii def ngeen lii yu mel noonu. waaw mais xam nga man Aliou. xam nga Tické Laobé ba man li ma mun a wax mooy Sénégal ah. da ngay fekk kuy dof dof lu ñu di ko jàppale ci dof gi. mu gën hmm? pour mu non pour mu àggale ak ndofam daal. Ah. <laughs> wax dëgg yàlla parce que man mënuma comprendre yenn nit ñi quoi Aliou. Hmm. parce que keroog dama gis Nabou di dof dof lu Tikelaaw ba di dof dof lu topp ko beneen waaye aussi nekkaat fa di dof dof lu Tiké xam nga tey euh, kaa ma wax la benn affaire yi euh, ñuy def nii ñoom. li Nabou di def Tické daf ko ci jàppale. léegi am na nu mu doon demee Tické Law bi am na position bu mu doon taxaw affaire Nabou Dash du garaaw est-ce que xam nga loolu. Tické hmm. tamit am na fu mu doon am na nu Nabou doon mel affaire tikke tamit du garaaw. góo ket beneen góor gi leen doon góoral naan mosoo sëy moom tamit am na nu mu doon taxawee affaire bi du garaaw parce que gis nga tëgg làmb yomb na Aliou yaa ngi dégg mais booy fay mbër yi mooy làmb ji ya xaw ma yaa ngi may dégg wala déggoo ma yomb na mais booy fay mbër yi mooy làmb ji mais ñii ñëw yëpp ci coowaloo làmb ji lañuy ñëw mais li ngeen d'accord yéen ñëpp parce que tey ti ab ah, bu ma ñëwee nga may wax affaire ticket law bi yaa ngi dégg après tamit ma xam ticket law bi nu mu mel ticket bi day dof lu nit ñi di ko jàppale ci dof gi. d'accord yaa ngi dégg. Mm. parce que soo toogee nga ne xamoo sumbulu. te yow ñu gisoon la ak sumbulu di la yóbbu baar ngay gis video yi Aliou kooku lan lay def waxal yow mi fay nekk di ko won di ko wan lu mu bëggut a gis. yow moomu si sa bopp yow yaay yow yaa nara sax fekk ji leen ci dof gi. ñii ne leen doful dafa réew. déedéet réewul de ñoom dañuy dof doflu pour ruube sénégalais yi ba pare Sénégal mooy réew mu xam. Mhm. da ngay euh, si une minute mun nga ruube Sénégal gépp ah, waaw ci parce que xam nga tey euh, bopp yi nga xam ne ñoo daan taataan li gën bopp yooyu fi ñu daan denc li gën amatuñ ko. lu tax amatuñ ko. ba pare ah. lu tax amatuñ ko. non c'est-à-dire sénégalais yi léegi dafa am ñu xam ni dof la ñuy wër am na ñu xam ni wëruñu dof fu mu toll ni li ngay wax ni problème bii am na ñu ko yëgut yaa ngi dégg man yéen a ma ko wax quoi yaa ngi dégg man bu ma la séenee ngay dof dof lu rek man romb naa la parce que connexion bu may am di la dimbale si sa dof laa mun man wax dëgg yàlla. parce que xam nga la moo xaw sumbulu te yow ak sumbulu yéen a daan nekk guddi bëccëg subaa ngoon nga demoon fi ba ni ku laal sumbulu laal na la nga wëlbatikuwaat demaat feneen ni xawma ma kooku loolu moo munul nekk. Mhm. sumbulu même bu fekkante ni yow ah, xamuloo sumbulu gisantewu leen face to face liir yu ndaw yi sax koo fëgg mu ne la xam naa sumbulu. Mhm. waxa rek ku xamul sumbulu dafa am. Mhm. Ah, fii Sénégal. non fii ñëpp a xam sumbul. ah si non waa xaara ma wax la xaara. du mm. Tické Lawbe de. waaw neen Tické Lawbe xam non mais kaa ma wax la dara. mais ñi nekkul si showbiz bi. boo leen laajoon ne leen ndax xam nga sumbulu ñu ne ma xaw ma xaw ma sumbulu. Ah. mun naa d'accord mais ku nekk ci showbiz ku xamul su ku sumbulu amul. loolu nga jàpp yow. ma ni boo xamul sumbulu di nga dawal sa vidéo sumbulu romb la. Mm-hmm. mais Tické Laobé nee ko bu dee xamul sumbulu nay taal télé këram rek sumbulu dina ci génn. waaw bëgg ak bañ bëgg ak bañ déedéet bëgg ak bañ. non daf ko booy manifester sa télé rek. <laughs> wala ngay manifester sa portable sumbulu dana la romb nee ko nee ko léegi mu xaaraat sumbulu foofu. suy xanaa du du manipuler portable am. nekk ci TikTok bi naan TikTok bi saa su saa boo si nekkee di puus boo pu boo yàggee puus xam sumbulu xam nga kon na man bëgguma nit di dof dof lu ñu koy jàppale ci dofam loolu la daal dañuy dof dof lu ñooñu dañuy dof dof lu ba pare ñett ñooñu ma la limal ñett ñuy wër garab lañ boo fekkewul commencement bi doo xam ku raw fu mu toll nii daraja yi laa ilaha illallah ñooñu boo leen yóbbu woon ci ñuy faj bopp dinañ dinañ leen faj si kanam tuuti dinaa la wax li tax ñu def man maa la koy wax ñoom ñi ma la wax nii xoola waxu dof la la lu li wax bi waxu nit la wala waxu dof Aliou lii waxu dof la tay ji al yow doo Aliou. waaw man ma jimboori. waaw xamoo ma. ñu xëy ne xa nga xamoo ma looy def. xëy na nag la bu laaj dégg. déedéet am na lu xam ne xanaa am loo waxin dañ naan nangam waxin la xam nga waxin fan lañ ko d'accord. ah. nga gis ni fii kat gaa yi amuñu jot am na ñu yàkkamti nga dëxañ ko loolooy waxin te waxin dafa war a rafet xam nga lan mooy waxin est-ce que communication xam nga ko pourtant mbaam day ŋaax di wax hiha hiha hiha loolu mooy maman ñoom seen langage déggante nañ ko ñun ñun ñun nu ñuy def bay def communication mbaam yi dañ koy def hiha boobu am na lu muy wax yaa ngi dégg mais ñun communication bi léeg-léeg nit day ñëw di dof dof di ko changé di ko yóbbu ci beneen format gis nga tey boo nekkee ak nit ñu nekk ak mbooloo dafa am loo xam ne ni dafa am lu la war am lu la warul ay ah, la le mot diw lawbe la lu mu wax buñ ko ci topp le mot diw géwël la lu mu wax buñ ko ci topp maay sa ñeeño lu mu wax duñ ko ci topp kenn du wax loolu gis nga ñeeño ak géwël ak lawbe bu njëkk ba est-ce que xam nga lu taxoon ñu sos ko seen puso la ñu yoroon di ñaw fépp fu xottee déedéet mais xoola képp ko ci wàcc nekkatoo ñeeño ñeeño looy porté la ñun comprendre ruñ ne nit la moo géwal artiste yooyu yëpp lu nit ki di porté ci boppam la mm-hmm. mais xoola boo doxatul rël boobu bokkatoo ci bokkatoo ci askan boo ci bokkee du ñu xewle ba nga ñëw lu leen neex neexu la buñ la conseillé doo ko def amoo ci kilifa lan la bokkatoo ca mhm. lu dëgg bokkatoo ca yaa ngi dégg te lawbe daawul def noonu lawbe si àddina ba mu daj lawbe moo gën a am reconnaissance lawbe bu laxasee xam rek xam na la mm, billaay wallaay kon ku nekk ak walla sam am na mag ñu xam ne bu ñu mosaan a dem ci dëkk bu fekkante ne xamuñu fi ñuy jom dañuy laajte kër lawbe yi dem dal fa mm-hmm. di nga lekk yàpp di nga naan ataaya di nga am foo tëdd booy dem ñu gunge la te di ki ngay wër dinañ la teral ba pare wan la ki ngay wër parce que ñoom dañ daan préférer xam ñëpp mais lii nekkatul ak lawbe lii moom du lawbe pika lawbe tikke ji dong nañ ko ci def te dagg lawbe ji. teg nee sumulu sax sumulu sax. non loolu la quoi man man mënu sumulu boobu léegi kenn gisu ko mu wax avant xew nabudaas bi ak après xew bi mais tikke moom mooy wax rek bi ñu ko laajee sumulu mais mu tontoon na leen ko xaw ma ko. loolu daal gars yi rafet la wuñ ko xaw ma ko moom après moom dañ koy ragal. noonu non leer na am na. ku ko Tika Lawbe li mu bëggoon am na ko. bës mooy ñun ñu téye ko di ko joobe te Tika bi lan la apporté. merci. Ah, dara am lan lay tekki. dara Sénégal ñooy jël ko xam ne tekkiwul. xoola <laughs> dara yaa <laughs> ngi dégg. <laughs> Uh-huh. daraal ko ñun. ñoo fexe fexe ba li fi doonoon dara ama day li mm-hmm. sëñ Muntaxa wax. li sëñ Babacar si Mansour wax keneen wax ko. Mhm. billaay kenn du ko wax dañuy fekk ko xam ni. Mhm. la mu wax du tus ñu nekk. ñu nekk rek dañuy tardel mbaaru. ah dañuy tardel sénégalais loolu di ko sénégalais la soxla sénégalais bu ñu toogee di waxtaan. damay ñëw si Aliou naan ko Aliou doon naa xeex ak benn waaye mu ne ma nu xeex bi demee ma naan ko waa ji dama ko dóor nii naa an mu naan ma booba ban boor la ma naan ko mu naan ma booru Pikine mu naan booba boo jàddoon nii sama mag bu góor a nga fa uh-huh. boo ko woowoon ma daan ne ko dañoo dem police mu naan ma ban police ngeen dem mu naan uh-huh. booba sama nijaay a nga fa uh-huh. munoon nga ma woo téléphone léegi programme yu passé la ñuy jël teg ko tey nekk ci di di tardeel bokk na ci tardé Sénégal waaw seen débat seen débat sax dafa tardé. moo tax ñii di ñii di am. Ah. ñii nii parce que chaque jour ak kii fël la ah. kii du waykat du du leen. yaa ngi dégg ci galaw waaw <laughs> du buzz bi mais. Uh-huh. jëmmi jëmmi jëfin bi la nit ñi ragal léegi. Uh-huh. maanaam dafa mel ni moom dafa fësal. ba pare moom doguma la moom nee na ci kii bi veille mariage bi lantem dafay wër lant bi. ndax ñaari lant la tegoon mais benn lant bi dafa réer bi ñu ne suba la mariage bi ba tey bi ngi woote di laajte lanteem parce que ñen du bàyyi noonu ndax dafa jékki-jékki am ku ko romb daal am na lu tël loxo bi ci la benn lanti bi daal di demee. gars yi na ci biir moom daal mi ngi war lanti bi ba tey moom ci ke. lu mu que amul koo xam ne dañ ko yónni pour mu kii pour mu tollant bi. moom kenn du ko mu ngi jort mi ngi jort loolu moom ku ñuy yónni mu ñëw jël ko du président du ministre du député du leer. benn lantem lay war yaa ngi dégg bu lantem réer ak réerul yëpp moom lan lay apporter. yaa ngi dégg. Mhm. xam nga moom lu mu ñu bëgg a wan. Mhm. man moom bu bu fekkoon ne nabu Dash. Mhm. mi mi ngi ànd ak xelam. bu tikelew ba waxee loolu lay daax tiki. parce que bu të ku tëb ci xal dal ci xal war ngaa xam ne dese na ko beneen tëb. day parce que boo ñëwoon ci man man laaj la sa xarit nga ne xamatoo ko. Mm-hmm. man man man man dama naa la effacé ma léegi. waaw si nit. waaw ba pare xoolal nit ku xoolal nit ku jub. Mm-hmm. soo ko soo ko dee gis ak nit ku dëgg seetal nit ko xam ne bu ñëwee ci yow lim lay wan ca ka mu jóge. jeex na tàkk. waaye ñëw naan la xaw ma kii xaw ma kii Nabou Dash na xaar dégg di mel ni mm. peut-être un jour mu ne xaw ma Nabou Dash mm. <laughs> di ko laaj euh, loolu euh, juste juste benn précision ñun mm-hmm. bokkuñu ci ñi nga xam ne dañuy jël euh, ay wax yu ñàkk fayda wala lu ñàkk fayda ba ko valoriser non mais feebi bi la ñuy analyser juste fait bi jëfin bi waaw jëfin bi nga xam ne jëfin xam nga jëfin bu rafetul dañ naan rafetul mm-hmm. moo ñu